Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la conférence renouvelée, merci de vous like, merci de merci également du bail, c'est les commentaires. Manko Djulin Dabli, aujourd'hui Gaël, l'équipe nationale du Sénégal, Djulna drapeau des mains du chef de l'État Macky Sall, également du Wadjal Demfanga Khamne Bafoussam, Cameroun, Gil Wadjal 33e édition de la Coupe d'Afrique. Le Sénégal en quête d'un premier sacre continental avec ses jeunes poussins, hein, qui Pape Matar Sar, Pape Alassane Gueye, entre autres. Le Sénégal aujourd'hui qui est attendu, hein, Guy, Sénégal mais au-delà de ces images il faudrait qu'aujourd'hui nous xamné sous une devise c'est un seul peuple un seul but une seule foi Nous ñëpp ñoo et cette équipe nationale ce n'est pas l'équipe nationale d'une seule personne c'est l'équipe nationale de tout le Sénégal c'est l'équipe nationale de toutes les confréries c'est l'équipe nationale de toutes les religions c'est l'équipe nationale de toutes les ethnies donc l'équipe nationale du donc aujourd'hui par rapport à déjà à ce remise de le président Macky Sall fait un discours vraiment encouragé président quoi qu'on puisse dire c'est le président de la République fait un discours mais un point également Kalidou Koulibaly le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal aussi li nga xamné euh, objectif du Sénégal ak li nga xamné tamit Augustin Senghor entre autres mais man également image bi frappé ci li nga remise drapeau image accolade très très très émouvant entre qui nga Keita Baldé et El Osey Ousseynou le double ballon d'or africain le premier joueur avec sa génération bi nga xamne ñom Sénégal coupe du monde yóbbu demi finale 2002 lol kenn du mais également la présence de d'anciennes gloires hein, de l'équipe nationale du Sénégal Khalilou Fadiga entre autres soutenir seen jeunes frères soutenir seen équipe nationale mais mais mais les Messi si moi je j'ai suivi le direct gars mais sincèrement sincèrement ñun sénégalais nous nous xoolaat suñu bopp ñun sénégalais nous xam luñu luñu luñu contre nit wala bok luñu luñu lu ben parti bu réew soxla ñun ñëpp nañu doon ben équipe nationale Sénégal moñu soxal nañu gëm suñu équipe nationale mais commentaire yi ma ngi gis ñeen ñi ci direct bi ñaan non Sénégal du jël dara Sénégal du jël dara gars yi ku nekk am nga sa dëkk ku nekk sa dëkk ngay ndamoo les Camerounais seen dëkk lañu ñu ndamoo les Algériens seen dëkk la ñu ndamoo ñun sénégalais nañu ndamoo suñu joueur ñun sénégalais nañu gëm suñu équipe nationale parce que bu ñu gëmul ñun suñu équipe nationale qui va croire en notre équipe nationale ñun suñu bopp ñoo war a wuyoo li ñuy woote ñun nous sommes un seul peuple nous nous avons un seul but et nous avons foi en une seule chose Tay, boo gisee ñoom Sadio Mané génération B, nga c'est une génération boo xam opportunité de lu bëri am relève Sénégal a une équipe bu donc nous devons encourager ces joueurs nous devons plus croire en ces joueurs ndax devons ñuy dugg ci terrain bi ñoom ñoo ñu gagner nous, ñi dugg ci terrain bi gën a bëgg a jël trophée bi alusi c'est luñ contre contre même bu tout le monde n'est pas d'accord avec lui man parfois je ne suis pas d'accord avec lui comme chacun d'entre nous mais actuellement euh, liñ naan on doit tous être derrière notre régime national. Et quand tu vois cette génération, nous Bamba Bambadia, nous Pape sarr nous Pape Alassane Gueye, nous euh, Nampalis Mendy, nous Edouard Mendy, nous Hamna, nous Djugé, France, nous nañ nous Football, nous ne drapeau Sénégal la ñuy représenter Buenos pour moi ça doit être une fierté Keita Balde Diao qui représente le Sénégal qui représente d'autres nationalités qui représente également la, la, culture sénégalaise ku la religion Qui nga la ku euh, gi nga mais si nous sommes national nous avons amuñu couleur amuñu religion amuñu parti politique nous parti la ñu am muy Sénégal benn couleur la am muy verte jaune rouge benn objectif que am C'est un peuple, un but, une fois. Moi, c'est une devise. Djelikoubé, gars. Donc aujourd'hui, quand je vois par rapport à l'équipe équipe nationale bi tey gis cohésion bi l'équipe nationale que Ben Ismaël Assar def fait le plus mën ngir pour équipe nationale Sénégal dem bay teg pression club am loolu war nañ ko mën a gis des Seny Dieng yoo également papa sénégalais la un père du Sénégal ñu def ko au moment où d'autres joueurs yoo xam de du tour, de seen tur bàyyi nañ fi Sénégal dem jël le nationalité du football yeneen club yenen équipe nationale bok, ñun dañu wara fier suñu Sénégal ñun ñi lañu am ñi lañu wara titéro donc on n'est pas politicien on n'est pas euh, plutôt d'aucun parti ñun benn parti lañu am muy Sénégal donc on encourage cette équipe nationale on doit être fier de cette équipe nationale gars yi nañ ko wax jotna nañu manko ñun ñep don benn say fexé ba encourage une équipe nationale ñaanal ñu jël coupe bi la dernière chance de pour remporter coupe bi ñu bari ci équipe nationale bi amna ño xamné tay trentenaire donc bi moy nek peut être seen dernière coupe d'Afrique. donc nañ leen encourager. El Diouf déjà cette image mi ngi wax Keita Diaw vous voyez Sadio Mané à côté donc li moy fierté Sénégal li moy teranga sénégalaise teranga bi nak nañ ko Esprit, fi yobu esprit gaynde bi Cameroun gagné donc gars yi woy leen di like woy leen di abonner encourageons nos lions ça se passe ici toujours un plaisir de vous servir avec eSport TV Dia Ngen un peuple un but une fois les gars